dama am problème ak euh, benn entrepreneur bu ñuy wax euh, Cheikh Goumbala ak notaire Binta Thiam ak benn femme agence immobilier Seynabou Kane ATM immobilier bi sama papa gaañoo le 2 avril 2017 entrepreneur bu ñuy wax Cheikh Goumbala ak Maam Góor Diop sama rakk papa ak femme agence bi ñu def seen complicité te indi ay nit ne samay rakk lañu entrepreneur bi non pas bi entrepreneur bi femme agence bi immobilier bi ak sama rakku papa bi bi sama papa gaañoo mi ngi gaañoo le 2 avril ay timis ñoom ñi ngi ma woo ay une heure du matin une heure du matin la ma sama rakku papa la ma femme agence bi boppam moo ma woo Seynabou Kane ñi koy wax mbenn ATM immobilier mu woo ma ay une heure du matin bi ma woowee une heure du matin ndaxte il paraît que paa bi gaañoo depuis ay timis police ñëw na récupérer corps beeg bagage yëpp ba yóbbu ko Dantec sama rakk papa bi ba corps gi demeek yow moom demul woon moom mi ngi tal talul dara lu dul jël kayitu kër gi ak bagage yi ak télé yooyu ak yu fi nekkoon yi nga xam ne mooy important yi pour o cas où pour ñu gën a def ay seeni mbuxum ma ñëw laajte ne ku nekk si kaw fu mu ne nii comme yóbbu ngeen koor bi ku yor caab ji ñu ne ma sarak papa moo yor caabi mais nekk ko fa mais si suuf borom biti bi nga xam ne ñoo ko luwee sama papa ko luwee woon moo ma ne sa papa mi ngi si kaw sarak papa mi ngi si kaw mu tëju si kaw ndakate bi ñuy jéem a di ma xeex yëpp ñu ngi préparé seen i seeni seen i mbuguj mbuguj ñu toog ba ba si 10 heures ñu dem départ dem Dantec yóbbu koor bi si biir euh, néew bi rek si biir jent bi Touba dem dem Touba bi rek ñu ngi may indi ay problème yu jeex si yoon bi si oto bi ba noonu laa gedde oto bi wàcc jël beneen oto ak ki ma àndaloon ki ma gunge woon tellement que ñoom plus de ay vingt personnes yëpp ñu ngi ma sot maanaam pour jëm pour maanaam njuxum xam nañ ne paa bi bàyyi woon na fi ay bien te xam na ne paa bi mën na la jur ñoom yàgg nañ ma xeex avant avant paa bi dem parce que man sama papa mi ngi mi ngi dem itali bi may am ay deux ans la dem itali ba ni ma am ay trente cinq ans lay doog yewaat mi ngi ñëw deux mille deux mille six la ñëw waaw moom kër gi yëpp R plus kër gi ay locataire ñoo fi nekk ñu luwee ko jox ko agence bi léegi ñu toog ay 3 mois agence bi commencé ma fay sama locataire location bagage yaa ngi noonu ñu ma fay ATM di ma fay chaque weer ñu may fay weer bi ñu fay ma 300 weer bi 400 parce que dafa tombé ak moment bi nga xam ne Macky Sall dafa faal luyaas bi ay temps pas bi mi ngi doon luwee kër gi 90000 mais bi gars yi par mois deux chambres salon moom la ñoon di fay. léegi sama ko papa bi mu koy wax maam Ngor kompaloog Cheikh Gumba la woo ma téléphone ne ma kat sa papa am na benn kër bi mu doon waaj a jaay mi ngi mi ngi syndicat avant muy gaañu loolu fàtte nañ la ko wax ñu la ko bëggoon wax si bagage yi mais comme coow li tax comme léegi ak yow boobu dem nañ ba xam ne man téye naa affaire yi ñu ñëwaat nànk naxanteeg man ba nax ma ne ma sa papa am na kër mu doon waaj a jaay syndicat préparé na ko mais si diggante bi kon ndax sama papa moom gaañoom dafa jékki-jékki daanu malees la kenn xamul lu ko rey ma ne ko ok ñu ma nag mais xaalis bi duñ la ko jox da nga am ay rakk yoo ko bokkal ma ne ko ay rakk ñu ne ma sa rakk am na loo ko bokkal sa papa am na ay doom ñu ngi woon Suède ma ne leen Suède man sama papa daa mos a dem Europe ndakate entrepreneur bi gumba la moo dem manigance indi ay nit Suède indi leen mooy kayit yi ma la woon nii ngay gis ay sant yoo xam ne doo xam fu ñu jógee ay Jóob ak Jóob te kayit yooyu bu si bu si gëstoo ba def ay renseignement xam nañu ne ñooñu mbay jur leen ndax papi Italie la ne woon Napoli ñu may seetaan xam nañ ko bu baax a baax man nag ay kayit laa yor ay kayit laa yaakaar moo tax ma dem si yoon bi ma demee si yoon ba ñu génnee 4 heures du matin ma jubal foofu ba si ay 8 heures bi ma génnee fa laa jëm bi ñu ma génnee man nekk ma fa woon samay ñoom ñabi ñoo fa nekk mais ba man ay ba ma fekk man guddi gi dama fay sama téléphone bi ma xëyee taal sama téléphone. laa jot message ñu woo ne ma ah génne nañu ba jeex tàkk ñu ngi si buntu kër gi taxaw ma ne leen génnee ku leen génne ñu ne ma waa dikk si laa jël sama bagage ànd ak sama papa dem ba commissariat bu dikk toog kilifa bi mu doon ku baax. entrepreneur bi comme am na bras benn gorom policier la si lañ yabal auto police Pikine ñëw foofu bi ñu ñëwee man comme waxoon naa si média bi kat lii sama bakkan laa si te defoon naa ko te bëgguma ko woon du nekkul woon lu ma gënal ma sotteeku woon essence ne dama doon taal sama bopp boobu jaaxle naa dem naa fu ne jël naa avocat mu corromp ma jël journaliste journaliste yu ma di ma corromp jël ay nit ñi may xeex samay mbokk xeex ma sama rek papa xeex ma jaaxle naa aw ma fu mu dugal sama njaboot bi ma defee loolu ci aw li am sama famille ñëw fay ma si diggante bi ci sotteeku ndox ma bu fekk autopolis bi taxawoon bi waa bi fi waa ba fa waa jig jigéey autopolis ba ñëw taxaw waa police woo ma fexe ba dugal ma si oto bi woo ma ne ma kañ dem nga wuyu kilifa bi dafa la soxla dafa bëgg rek la sa problème ndaxte fekk sama ñoom jabar woo nañ ma ne ma boo demee police bi dégg naa si ñu dégg nañ si suuf ñu ne dafa ma bëgg a jàppalu pour defeere ma fekk am na benn vidéo dinaa la ko won jëkkëru femme agence bi le 24 juillet ba ma médiatique ko si si réseaux sociaux yi bi ngeen tapé le 25 décembre di ngeen gis image yi ngeen def Moussa Diop di ngeen gis image yi tudd si média yi may tudd turam si la ma jëkkëru femme agence bi di ma menacé génneel ma jaas yi ne def may rey bu ma bàyyiwul jabaram bu may tudd si média yi si laa jël plainte déposé ko au niveau du procureur bu pikin si la ma ko déchargère defal ma mention mooy nii dans la ko mooy mu ngi si kayit bi ngay gis noonu bi mu defee mention ñu ma da nga yëwaat dans 15 jours le 25 février laa la wax de dans 15 jours si ma yëwaat bi ma yëwaatee jël kayit bi yóbbu ko ñoom nangu ñu jël sama kayit. maanaam soit transmis procureur mu jox ma bu Pikine jël dossier bi ne ma naa dem Pikine ñu def enquête mooy ST soit transmis yaa ngi may dégg si diggante bi nag loolu bu muy amee bu ñu ma téewee ba ma ñëw ba police fekk yàgg nañ ma a téye ma jot ñu jaarale foofu ne ma si jour bi da fi am benn ku ñuy wax Serigne Galalo moo la plainte donc yow da ko menacé de mort ma leen man kii maa ko njëkk a ba ma ko plainte ba ma ko plainte du tey dossier baa ngi nii ngeen xool mention beeg yëpp a ngi ni ma au niveau du procureur gars yi defeere ma jàllale ma yóbbu ma rëbës ma def un mois quinze jours bi ma génnee entre temps ndakate ñoom si jour ñoom xam nañ saa man bu ma génnee bu ma fa nekk bu ñu génnee samay bagage dama yor sama këyit damay duggaat si diggante bi nag ñu teg ay xaj ay sécurité changé logo kër gi couleur kër gi melul woon nii ngay gis nii bu weex la woon mais comme xam nañ ñu kër gi siiw na si si ginnaaw ñu kër gi sama trois appartement yi ma yoroon yëpp ñu souloué ko man dama nu loué benn appartement bi yeneen deux appartement bi ma dëkku si parce que si diggante bi comme femme bi prix ñu doon loué arrangé wuñu woon bu ñu génnee man defatuma moom benn rapport ku génn rek man damay luy waat sama appartement bopp ndax su boobaa dootuma bokk dootuma ko boole su sama contrat papa bi ñu jël trois appartement yi profité si li ma génnee loué ko changer étiquette kër gi pinturaat kër gi pour gëlëmal euh, bëtu sénégalais yi sénégalais nag du ñu ay dof kilifa yi du ñu ay dof maire yi ba mu nekk képp ku bëgg a jaay kër gi nag yoboo ngeen xàmmee kër gi bu wax villa 417 la képp ku koy jënd di nga jënd loo xam ne àndul ak yoon changé nañu étiquette kër gi soit da koy paaja jaayaat soit mu jéem a wut beneen pexe bu mu def mais àdduna bi laay seetaan ñuy seetaan ak ñi xam ne dañuy jënd ay kër kër gi nekk technopole villa 417 na ngeen si bàyyi xel bu baax kër gi dafay demaat si yoon essant yi mooy dañ ma génnee biñ ma génnee gis nga fi ma nekk nag sama njaboot fii laa nekk sama jabar moo ko la jënd lañ ko abal man def fi sama njaboot en attendant problème bi am diggante mi nag bi ma téewee amuñu woon solution ñu dugal fi du sama kër fii dañ ma fi abal néeg bii nii benn néeg bii laa defee lépp ak fii laa defee lépp waaw du kër gi ma nekk lañ ma abal néeg bi ma nekk benn benn néeg la lañ ma abal fi kër gi fa lañ jëm ni mooy nekk technopole villa 417 ah, du fii may remercier àdduna bi di woo xalif général des mourides di woo xalif Ndiassane yi limaamu laay waa Tiwaawan ñëpp képp ku autorité rek woo naa la si si si lii nii nga ñëw jàppale ma si doole si xam-xam si kayit ak noo ko mënee rek sama numéro moo nekk noonu ngeen di gis noonu muy 77 433 26 61. may wo aussi maire bi di woo préfet bu Pikine di képp kuy waa Pikine parce que mbir mi bari na Sénégal si lu mel nii rakk dafa neex. bu ma leeree ne samay rakk la ñu wane kayitu leer naññ dama koy nangu mais amuñu benn findeef may woowaat àdduna bi ñëw jàppale ma si lii jaaxle naa ba ma ko médiatiser dèjà commencé naa jot ay menaces lu nekk maa koy jotaat menace de mort lu nekk maa koy jot mais teewul ma bàyyi damay dem nax sama yëfu bàyyi la bokk ma ko kenn du yeboo ñu rey ma du yeboo ñu tëj ma à vie. ñu dimbale ñu pour nu ñu mën a jotee suñu kër lu ñu mën a jotee suñu kër te ñu may ko jàmm menaces yi ñu koy menacé ci téléphone am nit bu nekkee ci dëgg. kenn du ko menacé ku newul ci dëgg rek mooy menacé waate nañ bàyyi menaces yi ñu koy def te xam ne kii xale la bu amee 40 ci layam yam yàllaa ko teel a may njaboot rek ñun ñu teel a dugg ci moom sëy te yàlla tax nañu dimbale nag ñu jot suñu kër gee ak nuñ ko mën a jotee ñun daal lool rek lañuy ñaan te loolu lañu bëgg te dañuy ñaan yéen ñi nga xamante ne yéen yor wàllum média bi ah bu kenn yëkkati xaalis jox la ko ndax ñoom loolu la ñuy dox yëkkati xaalis jox la pour nga xeex Moussa lii man maa ko wax waaw bu la kenn woo naan la ay nangam bi nangam bi ba nga xeex Moussa ndax ñoom am nañu doole te kii amul doole ku am doole ak ku amul doole mënuñoo xeex man daal loolu daal laa am lu ma ciy wax